maa ngi tudd Ibrahima Ndiaye donc euh, di chef de travaux ci centre bu ñuy wax euh, centre de formation professionnelle de Ndangalma chef de travaux nag ci centre de formation professionnelle yi mooy ki nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci jàng ak jàngale ñu di ko wax les aspects pédagogiques et techniques donc euh, foofu laa laa nekk donc comme ni ko président waxee donc 3FPT mooy partenaire bi nga xamante nii donc moo financé formation bi mais moom financement la yor mais day wut koo xamante ni xam-xamam dafa màcc ci formation mu dénk ko ko donc ci cadre boobu lañ ñu joxe formation bi ñun ginnaaw bu ñu jongante ak yeneen yeneen structure yeneen centre de formation ci ci ci ci ci xarañte ak yooyu ñu tànn ñu indi ñu Mbàkke pour ñu gere formation en pâtisserie bii nga xamante ni defal nañ ko groupement bi euh, sëñ Mbaw jiite donc ma ànd ak euh, gestionnaire u centre bi muy monsieur Amadou Ba ànd ak benn formateur en LA mu ngi ne le monsieur Ndiaye donc ci tour directeur Moussa Soñaan donc mi nga xamante ni moom mu ngi ci centre bi moo ñu yabal tey ku ci nekk li nga war a jouer ci rôle nga dox ko man aspect pédagogique et technique moo fi indi ke gestionnaire affaire gestion moo ko fi indi donc ci cadre boobu lañu fi ñëwee tey pour clôturer. formation yi ni muy tëddee mooy dafa am fonds bu ñuy wax 3FPT boobu fonds wu Sénégal euh, par exemple tey euh, état moo fi teg benn fonds boo xam ne day former ci wàllu euh, formation professionnel 3FPT boo ko déggee mooy fonds de financement de la formation professionnelle moom day financer lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle. ci biir loolu Sénégal xam nga bëri na ay groupement ay ay association góor ak ay jigéen yu yëngu ci ay domaines yu bëri di bëgg ku leen former te amuñu doole ji donc ci biir loolu donc localité bu ne bu ñu bu ñu yëngoo xam fi ñu war a jaar organiser wu peut-être ñu jaar ko ci président peut-être ñu jaar ko feneen ak feneen mun nañ demander ay formation 3FPT donc ñu yéegal ko ba mu yegg foofu su ko defee ñu wax li ñu demandé 3PT ñoom bu ñu ko saytoo nga xam ne ah formation yi nit ñi demandé kat yanu na maanaa war nañ ko mën a financer wala nañ ko mën a financer ñu def ko ñoom ñu valider ko donc mais ñu du ñun ñoo fi indi formation ñun trois ñun euh, centre de formation professionnelle mais ñun suñu xam-xam dafa parce que état lu nekk da ko organiser dafa am structure ay instances yoo am da ko teg pour ñuy former. yii ñu teg ko pour ku ci nekk ak li nga war a def ñun formation rek la ñuy def donc suñu centre centre état la gouvernement bi moo ko moom donc su amee lépp luy jëm ci wàllu formation luy wàcc ci askan wi donc euh, structure am bi nga xamante ni mooy formé muy centre de formation professionnelle moom lay waxal donc ci cadre boobu rek lañ fi ñëwee donc ñoom bi ñu saytoo formation yi ba pare dañu ni ah am na kat form euh, waa waa Mbàkke yi bëgg nañu ko leen former en pâtisserie mu nekk marché ñu def appel d'offre daal ni centre yi nga xamante ni nii 3 ak accrédité na leen reconnaître na leen ñu jox ci ñetti fo ñetti centre nii yow centre tel centre tel centre tel jongante leen ñu def ay offre technique et financière ku ne défendre sa offre ku ne wax ni ngay former pédagogie bi ak euh, méthodologie bi ak li nga war a def lépp ba pare wax koppar yi ngay former ne ñaata lay toll ñu def ko suñu moroom def keneen ak keneen ñoom nag yooyu lañuy ñuy étudier aussi en en ba ci beneenu fànn ginnaaw bi ñu étudier euh, demande de formation bi daal ni wax ni kat ah ci tëralin ak ci doxalin centre sàngam mel na ni moo gën a baax le donc ci cadre yooyu ci ci ci fànn yu leer ci lañ naan donc kon centre bii moom moo gagné parce que bu ñu ko deful noonu rek day am parparloo day am parparloo mun ñoo jël benn centre rek sans pour autant ñu jaaree foofu. daal mais nag bu ngeen gisee formation bi ni mu demee ak euh, formatrice bi ñu leen fi indil xëy na yéen di ngeen ko wax waxal seen bopp mais man je suis satisfait par rapport ak li ñuy def. bon sa euh, formation yi yëpp ñëpp mën nañ ko def muy góor muy jigéen bu ngeen gisee ci ci def naa ci bii am na ay góor ah, ah donc euh, góor ak jigéen yëpp ñoo ci am corte bi par corte vingt cinq personnes la mais ci jàppandil aussi tamit. Euh, parce que euh, moom bu nee bu fekkee dugal na comme ni ñu ko waxee début bi peut-être am na ñoo xam séq naa ñoom teraanga ci kii bi te ñu bëgg ci formation te mënuñu cee jot ak yeneen ak yeneen n'est-ce pas donc euh, ci yéwénal léeg-léeg dinañu xëy na xam nu ñu yéwénalee ba am nu ñu yokkee nombre bi waaw ci ñun centre parce que ñun vingt cinq personnes lañ ñu fay formatrice bi vingt cinq personnes lañ ko fay liggéey bi juróomi fan la diiru juróomi fan la donc lañ koy def juróomi fan nag tuuti na mais nag bon comme renforcement de capacité la rek dinañu def le tout nga xam ne juróomi fan yi dinañ leen ci wan loo xam ne dinañ ci mën a départ pour perfectionner waaw léegi nag formation bu jeexee aussi tam dañu am diplôme parce que boo formee nit ba pare donc formation bi jeex nga évaluer ko da nga koy jox diplôme waaw diplôme yi yooyu yëpp dina am bon Mbacké Mbacké pour l'instant Mbacké la parce que euh, euh, fii six groupement lañ fi am juróom-benni groupement bii mooy bi ñu njëkk a tàmbaleel après des na yeneen yoo xam ni dinañ fa dem pour. Euh. man la Koura Diop ñu may wax madame Fall ñuy liggéey ci centre ñu nekk ci centre formation Ndangalma ñuy li ñu indi ñu fi tey pour ñu def pâtisserie. ñii nag yàgg naa liggéey ak ñoom parce que seetee moom moo ma fi indi monsieur Ndiaye mi moo ma indi ndàngal ma man maa ngi nekk Kébémer lañ xamante woon maak moom ñuy formé foofu après ba mu ñëw ndàngal ma mu indi ma foofu yàgg nañu liggéey maak ñoom bi ma commencé liggéey ak ñoom sax seen école parewul si mairie bi lañ commencé woon ñu liggéey ay formation céréale lañ daan def école formation bu fa nekk man maa koy def waaw ma koy sant bu baax na parce que mënu ma koo fay jigéen ñi ma doon formé tamit ma leen di baalu àq que formation dafa metti parce que xam nga formé ma ko jëm dafa metti dafa metti trop ma leen xam nga ñu xam nga ñu suñu commencé formation li ñu njëkk def mooy dañu ubbi groupe whatsapp ci groupe whatsapp bi dañ ci bëgg di waxtaane li ñuy def ci formation ak li ñuy def ci journée parce que xam nga formation juróomi fan dafa gàtt il faut que ngeen pour pour formation bi continuer ñoom ñu gën a dugal seen bopp il faut ñuy am seen numéro di waxanteeg yow di dugg ci groupe bi di wax ko defee nga leen gën a mën di expliquer li li def daal. xam nga jigéen ñi dañoo mën a liggéey waaye xam nga lan mooy seen problème koo ci newoon tey am nga diplôme mu ne xam nga nag ñu jàngal la jën ba pare te nappoo tamit amul sens bu la waxee defee yoon bi ne la lii ngay liggéey da nga si góorgóorlu la nga parce que lañ leen defal ni tey defal nañ leen boo xam ne farine defal nañ la kon pour ñu liggéey yomb na daal parce que du da ngaa war a am four rek nga war a liggéey boo amee four na sax mën nga cee liggéey ñu góorgóorlu daal liggéey ma loolu daal laa bëgg daal la ñuy def defal nañ keek boo xam ne si ceeb lañ ko defaree defal nañ boo xam ne ci mil lañ ko defaree dugub defal nañ boo xam ne ci ci ñebbe lañ ko defaree defar nañ pizza defar nañ neem defar nañ akara defar nañ leen daal lépp loo xam ne ñun dañ koy bay ñu ñu ñu wan leen nan lañ koy nan lañ koy defar ci beñe defar ci keek defar ci gato xam nga tamit bu fekkee da def sa formation bi tey def nga say sump bi def nga tey ñu formé la ci sump te bokku ci ah wan la nan lañ defaree koko dinjeer loolu la dañuy defaree koko meew te loolu bokku ci formation bi loolu rek nga ko defar nga jaay nga commencé nga am départ bu toog di xaar ba yoree benn cinq mille francs mën commencé parce que li ngay commencé bu ndaw bi mooy nekk bu mag bi suba na affaire nag doo ne da ngay commencé rek mu dox tey dangay dangay jàpp bañ a bàyyi bu yàggee ñu fekk la ci. man la Bousso Sow madame Thiam uh-huh. bokkoon ci éléments yi nga xam ne ñoo doon participer ci formation pâtisserie bii nga xamante ne nii ci GIE des artisanat lañ ko amee ci njiital Moustapha Mbow. macha allah am na solo lool parce que jàngal nañu lépp loo xamante ne nii dañu koy bayee ci suñum réew. nan lañ ko mën a transformer ba mu nekk ay xeetu gato ay xeeti keek yoo xam ne dinañ koy mën a utiliser te dañ ko daan ëpp ñu ko daan jënd ji tey jii jàngal nañu noo xamante ne nii dinañ koy mën di utiliser du jar ñu di ko jëndeeti ci suñ biir kër yi soxla bu ñu amee four dinañ ko mën a def suñ amee gaz dinañ ko mën a def suñ amee na dinañ ko mën a def macha allah dinañu jariñ bu baax parce que comme niñ ko waxee rek formation moom buñ ko amee lu ci ëpp dañ ciy remercier ñi nga xam ne ñooy ñooy waa 3 parce que ñoom su leen neexoon ñu téye ko te téyewuñu ko dañ koy jël di ko wàcce ci ñun ci suñu biir kon suñ ko xasee ba am ñu ñu ciy jox diplôme boo xam ne c'est reconnu au niveau de l'État rek loolu ak cant la nit a ngi fay xaalis pour def ko te mënu ko am kon ñun suñ ñëwee ba indil ñu ko wàcceel ñu ko ñu am ko suñ ci paree dañoo war a mën a jariñ te dañ ciy jariñu sax incha allah rabbi ndaxte li ñu li ñu li ñu dimbali rek mooy comme 3FPT indil nañu formation ñu am ci diplôme war nañoo mën a démarrer suñu bopp ndax jigéen moo yor réew moo yor société tey jii état lu mu am am am doole ñun jigéen ñi ñoo leen ëpp doole ci fépp fuñ mënti taxaw tey jii lii ñu jàng fii nii yépp kenn ku ci nekk soo génnee bu subaa mën ngaa nekk traiteur ndax lii day dox mën nga cee démarrer ñaar ñett ñi nga xam ne ñoo bokk koñ war nañoo mën a ànd ngoon gu jot ñu daje fenn wala journée bu jot ñu daje kenn ku ne boo defee 1000 francs sax war nañoo mën a defar ko ko jënjeer wala ñu defar sump wala ñu defar gerte jënjeer suñu paree commercialiser ko comme ni ko ma madame Fall waxee de petit à petit day dem te y a des autres yoo xam ne ay microcrédit yoo xam ne dañoo nekk ci ginnaaw ak ay crédit di jàppale femmes yi ba xam ne ñoom dinañ mën a dem suñu xasee ba génn rek bu boobaa ñoom nguur ñoo ñuy soxla waaye ñun duñ leen soxla dama nekkoon ci direction bi nag Dakar chambre de métier bu Dakar jànge métier village artisanal nekk fa nekk doomi Mbàkke su may ñibbisi fii vraiment damay gis dëkk yi may romb yëpp ñu suqaliku bi suñu borom dogalee ñu tàggat ma ci nag ci bureau tàggat ma ci artisanat ba yàlla def 2011 euh, parce que dama fa def deux mandaa bu nekk 6 ans mu nekk 12 ans yoo xam ni man fayuñu ma dërëm ci ki ko yilif di sama waajur bokk sama papa ndey ak baay duma wàcc ba ma jox ma benn dërëm ndekete moom li may bëggal moo gën li ma doon bëgg ci moom parce que man ba maa xaal xaalis maa ngi doon xalaat xaalis moom mi ngi xalaat nan la mu taxawee ba ba ma mën a taxaw ni mu taxawee moom ëllëg yàlla def nag 2009 ñu dem élection chambre de métier région Dakar ñu dafa ma nekk directeur campagne bi ma defee directeur campagne ñu ni doomu daara jàngul nasaraan ñu koy jox mu nekk directeur campagne ñu yëkkati ay quelques ci somme bu takku nag ma war a gere Dakar gépp si borom may ma nag kattan ak ngëm-ngëm ba yàlla dimbali ma réussir am ma gagné ci directeur campagne ci lañ ma dugal nag ma nekk. secrétaire élit chambre de métier soo déggee ñu ne la secrétaire élit chambre de métier danga bokk ci président chambre du de yi war a doon ëllëg bu la yàlla mayee gudd fan. loolu moo tax ñu ne élit chambre de métier ak secrétaire élit chambre de métier bokkul mais man sama këyit li ci nekk dan ni secrétaire élit chambre de métier bu yàlla mayee gudd fan bokk naa ci rang ñi war a doon chambre président chambre de métier ëllëg léegi nag bi ñu ba nga xam ne Mbàkke dafa sooxe. séminaire yi may dem ci quarante départements yi Moustapha séminaire yi may dem ci quatorze régions yi su ma ñëwee Mbàkke day mel ni daal artisanat bi dafa xaw a doy waar ci la directeur l'artisanat jaxate woote dikk woo Mamadou Talla mi ministre de l'artisanat sees bii seesam la taabal ji taabal na daal président Maguette Mbow comme comme Moustapha Mbacke la dëkk ci artisanat dafa am lu ci sooxe dama bëgg ñu jël ko fii defal ko procuration pour mu ñëw ñu dugal ko chambre de métier bu Diourbel pour département bi mën a am dara loolu moo ma indi 2015 bi ma ñëwee ñu dugal samay këyit ñu naj ma yaakaar na seen kaw laa jëm si yàlla nag ndekete mi ngi may defal li nga xam ne moo ma gënal loolu bi ma toogee nag ci lañ toog waxtaan bi ab du Mbacke Ndaw gañee ne dafay bureau dafay taxa a teg bureau artisanat ñi laaj ay këyit këyit bi ma yor gën a kawe ñu nawee ma nekk président ñu am récépissé bu gën a euh, euh, reconnaître partenaire yi ma am nii dafa fekkoon ma amee ko chambre du métier commission yi ma andi woon fii ci département bi commission état la direction ko ñuy ñëw di dox di dox di dox di bind di yéeg di wàcc ba yàlla def lii soo gisee nag Moustapha ma def ko formation yi danaan wàcc fii ci région Diourbel ni muy wàcce ci région yëpp lii danaan mas a am 1901 ba dem 2024 mais askan ñoo ci jot li waral loolu fa muy teg fan ko joxe dafa ex dañ ko indiwul ci askan bi mais bu fekkoon ne ni ñin ko joxoon andi nañ ko ci askan wi nii ma ko joxe kon Mbàkke weesu na fii kon Mbàkke mooy gën a riche ci département yëpp ci Sénégal man loolu nag laa tax ma summi sama mbubb man ci Ndakaaru andi ko Mbàkke commission bi ma am ci artisanat la ma cee ama ku su néew su ma ci génnee sama dépense kër li ci des ma ko ci askan bi mu metti lool nag metti lool ma muñ ànd ak équipe bi ma àndal bureau baa ngi nii Pape Thiamé mooy premier vice président ci kuréel gi Mbaye Guèye ngi nii ne ci bureau bi sëñ Saliou fay aada sëñ Fallou secrétaire assu ak ay membre nag yi nga xam ne ñoom ñoom laa àndal ñuy liggéey liggéey bi ak samay nit ñu am jàmm yéene ma ñuy liggéey liggéey bi Moustapha kon man duma gis projet bu mel nii man ci dara mu laaj nag xaalis ndax kenn ku nekk toog fii rek ci formation bi rek njaay ngi nii da ngaa waroon a génne sa xaalis dajale ko ba mu ba mat diis pour cent yi nga joxe ko njaay noonu la demee man maa jël sama xaalis faye leen yéen ñëpp pour ngeen sawe ci projet bi pour war ko mën a gagné parce que jaral ngeen moom muy góor muy jigéen muy 16 communes yëpp. loolu nag su fekkee dafa am man dama leen delloowaat njukkal parce que dama leen a woo ngeen wuy si ma ci waru leen ma Moustapha Mor a ngi gis ci Mbàkke Bawol mu soxla fukki nit téeméeri nit ñëw fekk fukk laa soxla loolu ci yéen la yéen a ma bëgg yéen ma jàpp kon lu ma am naa ko dellowaat ci yéen maa leen di sant maa leen di gërëm am na yeneen corte yu fi génn wàcc na démb isabat am na ay maçon fi ñëw démb am nañ corte bu wàcc muy pavage carrelage bâtiment yëpp wàcc na Linguère bi fi ñëwoon ci électricité moom it wàcc na actuellement nii nii nii nii trois cent cinquante personnes wàccaat ci quatre cent quatre vingt personnes yi desoon ci lii ci lañ génne cent cinquante personnes war ko la ci seize communes yi suñ jógee fii ci Mbacké dañuy dem Ngaabu suba suñ jógee Ngaabu dañuy dem Daaru Minam suñ jógee daaru minam dañuy dem euh, jànnatu suñ jógee jànnatu dañuy ñëw daaru salaam suñ jógee daaru salaam dem Sadio tëje ko fa la 5 la ñu war a pare saajo projet bi le 6 mooy remise symbole fii ci bunt bi fii ba ñu baas ko ñun dañoo xool xam ni doom aadama yi fi nekk war nañoo mën a gañe ni at et ni ni département yi gañe ñu war koo mën a gañe fii loolu moo tax ñun ñu sol suñu dàll ba mu dagg ba xar sol mbubb ba mu tilim dem ba amatuñu mbubb lu ne ñuy dégg ko waaye nag askanu Mbàkke nañu sawe man ma sëgg na ñëpp sawe rek man ma sëgg loolu maa ngi leen sant di leen gërëm dañoo wax loolu waxate ko wax xam nga ñu bëgg a def ñun ñun cotiser ñun askan bi ay dërëm dërëm sax man fi indi industrie bu mag artisan yi teel ko seen bopp ko mën na nekk nañ gëm suñu bopp nañu gëm suñu bopp ndax ku fi falu rek femme développement yi ñoo la fal ak acteur développement yi kon su fekkee dañuy liggéey ba déroulé fi mille soixante quinze personnes formation professionnelle technique joxe fi mille soixante quinze personnes diplôme amul benn kilifa gu mën a taxaw xool ci benn regroupement sax nga ne naa ko jàppale sax ci ab saabu wala ab ab ab tubéy wala dara amul ñoom ñi wëlbatikuwaat di sonn projet bii fi taxaw dañoo signé waat beneen convention ku ñu formé danañ fexe ba nga mën a am dara gëm leen seen bopp gëm leen yàlla jox war ngeen mën a nekk ministre war ngeen mën a nekk président mën ngeen nekk président chambre de métier war a nekk député ci jigéen ñi nekk au conseil nekk chargé de mission artisan yi ko moom kon yittee leen seen seen portefeuille ngeen portal seen bopp waaw loolu bërki démb laa dem Auchan ku ñuy wax nag ku ñuy wax Adama Sylla loolu su amee yàlla mi ngi ko jaarale ci Caama Sylla Thiama la moo boole ak Adama la mu ñëw taal otoom ñëw fii nag vraiment ci bureau bi toog waxtaan ak man bi ñu waxee ba pare mu wëlbatikuwaat woo directeur Auchan waxtaan ak moom jox ma ko ma wax ak moom mu jox ma rendez-vous ma dem fa ñu toog waxtaan signé nañ ay ay ay ay ay ay accord mais xam nga état la ak état maanaam këyit ak këyit la parce que doo jóg rek produire dem jën ñu jënd dafa am yoon booy jaar procédure boobu nag ñi ngi ciy dox fintoon nii actuellement sori nañ ci këyit yi ba ci SELEC yi fi nekk yamaluma ko Mbàkke parce que dama na wax ne senegal suñu paree dossier boobu la ñuy jël jébbal ko ki nga xam ne mooy kilifa gi mu valider ko su ko defee lii ngeen liggéey Osam moom moo leen di moo may woo ni dañu soxla nangam fii lañu koy jëlee ñu war yéen équipe bi ko defoon moo moo waral six cortes yi nga gis nii procès boobu moo ko waral mi ngi nii tey preuve mi ngi nii lii bi ñu ñëwee logo la association des artisans ak 3FPT ñoo signé convention suñu paree ñun suñu logo ak logo 3FPT moo ci nekk ak contact bi nga xam ne man ci lañ moo wooyee képp ku ko soxla fii ci bureau bi ngay woote ñu commander la jox la sa xaalis dafa la nga dem liggéey soo liggéey ñëw indi ko ci biro bi Auchan ñëw jël si ko ci bureau bi loolu moo waral projet bii ñu di ko dox nan ñaan yàlla nag yàlla dimbali ñu mu egg mi ngi nii toog bii géej gi la li ñu gën a soxla sax ñu neen géej bi mi ngi nii parce que ñoom dañoo bëgg léegi jigéen ñi bu ñu liggéeytee ba wàcc ak góor ñi ànd ak seen soxna yor seenu pañe dugg seen oto wala ñu dox seen tànk dem ci Auchan dugg li ñu waroon dugg ci suba si dugg ci guddi gi dafay baax trop. ca loolu prévoir nañ ko ba fi mu toll loolu signé nañ ko li ci des mooy ñu valider ko rek maa ngi ci doon dox ay jéego depuis euh, ay quelques mois ci ginnaaw te ba ma koy def it askan wee tax ma di ko def waaye nag dama bëgg tamit ñun ñëpp ñu booloo nekk benn. projet bii képp ku ci bokk na nga wut carte professionnelle chambre de métier moom moo lay permettre li ñu bëgg industrie bi ñu bëgg loolu am suñ demee ba taxawal fi benn usine boo xam ne ci der la projet bi ma di ko dox 2016 ngaay ba 2024 ba ñu validé ko def atelier bi fii ci Seyxul Xadim ñu représenté banque mondiale ñoo ñëwoon fii leer na sëñ Fallou Kane ngi nii asso ngi nii ñoo àndoon def tournée bi représente banque mondiale demuñu fenn lu ci bureau bii ñëw toog ñu ànd ci 16 communes yëpp dox ko ay 6 mois et quelque ba ñu validé ko fii ci euh, Seexul Xadim bëggoon naa yéen jigéen ñi ñu am local boo xam ne képp koo xam ne équipe bi fa war a liggéey nga di ànd ak sa équipe dem liggéey ko bi ci des lii ngeen sol muy bulus yii moom ngeen di sol keroog. bu ñuy def remise bi loolu la directeur bëgg kon nañ ko sellal nañ ko toppatoo ngeen mobiliser ko ma mobiliser wu fexe àndandoo nekk benn maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di sant ikki bi ma yàlla booleel nag ma ànd ñoom di liggéey ca fakkataluñ ma bu ñu xoolee li fi ne mu ëpp onze personnes ñiy joxewuñu dépense chaque jour damay jox sama soxna dix cinquante mille ci cinq personnes yi cinq jours yi di def ci nag loo xam ne bokkul ci projet bi ci sama xaalis bopp man maa ko jël may leen ko jaral ngeen ma ko ñi bokk ci formation bi ne ci list bi ak ñi ci bokkul yépp mi ngi nii seen diplôme yaa ngi nii yéen ñëpp yéen ñëpp am mi ngi nii dañ koy téye fii ci bureau bi nag bala la 6 fekk formation yi pare la cinq ñu def remise symbole 6 6 communes yëpp dajaloo fii ñu def remise bi balaa nawet bee dugg boobaa nag ku ci gën a góorlu équipe bu ci gën a góorlu bu ñuy identifier dana la identifier ëllëg lañuy ñuy séq yow dana ko séq yow.